asdaqu min allahi qiila loolu yàlla ana kan moo gën a dëggu yàlla wax kon tont bi mooy amul kenn ku gën a dëggu yàlla wax kon moom yàlla subhanahu wa taala moo waxaat ci ay aaya wala ci ay ahadis yoo xam ne ahadis ahadis qudsiya la moom yàlla subhanahu wa taala wax naa la sànq wax na la li tax mu sàkk jaam yi muy nit ak jinne parce que ñoom la yàlla sas jëf mooy wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun li ngay déggee tamit si aaya boobu mooy yàlla jinne la njëkk a ka nit beneen bi mooy moom li nga xamante ne moom mooy tawxiid mooy kennal yàlla wala wéetal yàlla wala jaamu yàlla ni mu ni mu waree loolu mooy li tax yàlla yónni yonent yi yonent yëpp li tax yàlla yónni leen loolu mooy cause bi wala xad baas في كل أمة رسولا لولا يلا وخ من دي يلا يوني ناسي بب خير واو تي خير ما نام ينتي يمو يوني يب تي أي خير دم يوني كوز مويلان أن يعبد الله موي نني جامو يلا واي نك واتني بتاخوت واي باي جامو نني باي جامو جامو خرم aya bobu boo demee sootu naxli aya fanweer ak juróom benn da nga ko fay fekk kon li muy la ilaha illa allah mooy jubluwaayu bi tax yàlla yónni yenent yi beneen bi yàlla mu ne wa maa arsalna min qablika min rasulin loolu la yàlla wax si beneen aaya boo demee surtu anbiya mooy saar bi yàlla tubbee yonent yi mu ngi naan yonent bi wa maa ars wa maa arsalna yónni wuñu min qablika li la jiitu min rasulin yonent illa nuuxi ilayhi loolu dinañ ko dee loolu dinañ ko wax wi ne ko annahu lii mbir tey mbir laa ilaha illa ana amul benn buur buñ war a jaamu ci dëgg ku dul man waaye nag faabuduun na ngeen ma jaamu faabuduun na ngeen ma wéetal faabudu na ngeen ma na ngeen ma kennal wa qaala taala yàlla waxaat wasal na nga laaj laajal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam man arsalna ñi nga xamante ni yónne nañ leen min qablika ci la fi jiitu li wees min rusulina si suñu yenent a jaal na min duni rahmani alihatan yubaduun ndax dañuy defal yàlla beneen yàlla bu ñuy jaamu walis walis moom tontu bi moom mooy déedéet kon mbokk yi li ñuy wax léegi kon tawhid mooy jubluwaay bi nga bi tax yàlla yónni yenent yi parce que léeg-léeg nañ la ko laaj lan moo waral yàlla yónni yenent yi kon tontu bi mooy loolu waral bi tax yàlla yónni yonent bi mooy lan ngir ñu woo jaam yi ci jaamu yàlla ak bañ jaamu xërëm beneen bi mooy moom yàlla subhaanahu wa wax na ci hadis wala wax na ci aaya boo xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko nettali muy allahu la ilaha illa huwa lahu al asmaul xusna yàlla wax na ci beneen aaya mune yàlla subhanahu wa taala amul ben buur buñ wara jaamu si deug ndax mom yàlla moy borom tur yu baax yi mooy borom tur yu yu yu yu moti moy borom melokan yu yu weri nga gis ne kon baat bi kon limu mu ëmb bari na lol mbokk yi baat bi nak dafa kolewu si benen baat moy wa anna muhammadar rasulullah parce que muno top yenent muno munoo muhammad yàlla moko yónni te fekk saxaloonu yàlla kese kese lañ war a jaamu moo tax yàlla jël yenent bi jokk ko si boppam moo tax ngaan laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah te mbokk yi baat bi benn ponk la si ponk diine yi te mooy ponk bu jiitu munoo ni gëw ma yàlla gëw ma yenent bi waaye damay julli déedéet il faut nga gëm yàlla gëm bu wér gëm yenent bi sallallahu alayhi wa sallam gëm bu wér soog a mën a lan soog a mën a taxaw ngir lan saxal julli soog a lan génne azaka soog a mën a woor parce que lan yooyu yëpp ay dénkaane yàlla la wala ay njàngale yenent bi sallallahu alayhi wa sallam kon pour nga appliquer yooyu foofu dafa am bu jiitu wax naa leen islaam dafa am nu muy doxee islam ay maratib la dañu jàng maratibu diin al islaam al imaan al ihsan léegi nag al islaam dafa am ay arkaan arkaan bi ji ponk yooyu dañ ko war a xam benn par benn ponk bi jiitu mooy seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul yàlla subhanahu wa taala léegi nag naka la ñuy jaamoo yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo koy moo la koy jàngal ni ñuy jaamoo yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo la koy jàngal kenn mënul jaamoo yàlla te defee woo ko comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daawoon defee déedéet mënul nekk mënul nekk parce que bokk na sax ci charte yi tax yàlla nangul jaam bi jëfam mooy lépp lu mu def mu def ko te yàlla tax waaye nag mu def ko comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defee kon baat bii di laa ilaha illa allah si fàttali baat la bu am dayo baat la boo xamante ne ay charte yu bari def si daje pour mu mën a euh, jëriñ jëriñ nit ki pour mu mën a dimbale nit ki fii ci àdduna fii ci allahira mu mel ni nag muy baatu seere ni amul benn buur bu ñu war a jaamu si dëgg ku dul yàlla loolu mooy tawxiid loolu mooy tawxiid bu keroogee bis penc sax yàlla subhaanahu wa taala nee na ñi nga xamante ne ñooy mucc mooy ñi nga xamante ne seen xol yàlla kese fa nekk yawma laa yanfau maalun wala banuun illa man ata allaha bi qalbin bi qalbin salim loolu la euh, yàlla subhaanahu wa taala wax mun bu kërége bis penc alal ju bari du fa jëriñ doom yu bari du fa jëriñ askan du fa jëriñ tur du fa jëriñ li fay jëriñ mooy ki nga xamante ne xolam feebarul xolam xolam wér na xol bu wér nag mooy xol boo xamante ne boo ko xoolee wala boo ko gisee yàlla kese nga fay fekk mais dafa fekk yàlla ak keneen parce que yàlla bëggul ko koy bokkaale man ashraka ma ghayri taraktuhu wa shirkuhu ma'an mbir boo si bëggee boole yàlla ak keneen yàlla dafa lay rocceeku dafay rocceeku ba set bàyyi la ak loolu loolu bu la mënee jëriñ mu jëriñ la bu la mënul jëriñ tamit yow ak moom yéen a yéen a xam kon mbokk yi yàlla subhanahu wa taala nee na wa man araada al axira wa sa'a sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kaana sa'yukum mashkura yàlla mu ni képp koo xamante ne bëgg nga sa àllaaxira jag waaye nag nga jëf lii tax mu jag parce que doo toog nii rek naan yàlla baax na yàlla baax na bu keroog àllaaxira yàlla ñëpp lay nang déedéet déedéet déedéet dafa am ci looy nekk waaw mooy lan nga rafetal say jëf boo rafetalee say jëf mun a rafet njor waaw mais munooy ñaawal say jëf ba pare mën a ñaawal say njortu moo tax yàlla mu ni wa man araada képp ku bëgg al axira bu sa alaxira jag sa alaxira baax wa saalaha saayaha waaw na jëf jëf joo xamante ne moo koy jagal wa huwa mu'min fekk moom julit la fa ulaayika yàlla mu ni ñooñee kaana nekk na saayukum seeni i jëf mashkura muy lu ñu lu ñu gërëm kon mbokk yi li si wax mooy mënta ñàkk moom jullit bi mu nekk kuy wetal yàlla subhaanahu wa taala pour yàlla gërëm ay jëfam yàlla nangul ko ay jëfam mu ni jëf bi lu mënti nekk ah faw tawxid def cee am base def cee am wàll moo xam lu baax la moo xam looy wax la moo xam looy jëf la nga bañ ci dugal ak bokk